waaw yéen a ko gisandoo noonu gis ngeen euh, video bi nga xam ne temps yi moom la ñëpp di waxtaanee ñoom nag jàpp nañ leen fële ca Mauritanie am na ñi nga xam ne nag dañoo daw ñoo ñu sont recherchés per lii moom xam naa noo commenté lay doon. yéen ñëpp mbokki internet bi gis ngeen sànq bi Abdoulaye waxee ba nu dugg ci génn àdduna ki nga xam ne moom nañu jiñ Golbert Diagne mm-hmm. Abdoulaye jox ma kàddu. ma waroon ko cee delloo wax ci li ma ci xam ak jiiñ nit tuuma ak wax nit loo xam ne amul fan la ko suñu borom wékk mu siif ma nangu nanguwul ma wax foofu ñu ñëw ci borom ñaari tur yi nga xam ne tax na suñu borom ëlbati suuf nga xam ne tax na sunu borom indi nga xam ne ay duma la leen suñu borom dig yomal xeyam kilifa gu toll ne man mën naa wax ci borom ñaari tur yi. non <laughs> benn ngeen de. lu toll lu toll ni lii nga xam ne ñii maa ngi muslu ci ñoom su ma leen xamee ñu xam ma man duma leen nuyu su fekkente ne xam nanu ma te man xamuma leen duma leen nuyu sun ma mayee seen alal duma ko laal kër gu nu dëgg duma fa dëggante ak ñoom ay tànk duma risonte ak ñoom ay tànk duma joxante ak ñoom loxo ñii maa ngi ñaan sunu borom musal ma ci ñoom ndax la mu leen dig yomal xëyam ndaxte sunu borom ëlbati na suuf dëppani ko ngir ñoom. Mhm. billaahi wallaahi wa taala dëppani ko. Mhm. dimbali ma ngir yàlla bul ma waxati waxi borom ñaari tur yi sama yoon newut ci ñoom tuddanteew maa ñoom dëgganteew maa ñoom ay tànk. ku ko ci doon te may ma alal ma lekk ko yow topp naa la ko ba yomal xayam ci barke sëñ moo du la may dara. <laughs> ndeysaan sama papa la dama koo bëgg man maa ko bëggal sama bopp. dëgg neexul wala loolu du dañ. yow da maa la wax lii. Ah, damay jàll fële ca gis nañ ni benn xale bu góor dafa daal di jàpp benn taalibe taalibe bu am 7 ans daal di koy violé affaire bu garaaw a ngi noonu. Ah, loolu moom xam naa ni moom. loolu boobu perte ci débat wala perte da nga ciy wax ci da ngay wax si loolu. non loolu perte na ci débat. waaye jamono yàqu na. <laughs> jamono ëlbatiku na ëlbatiku na. Mm-hmm. Mm-hmm. ndax xam nga ne su fekkonte ne ak njub dong dong dong dong dong moom la sunu borom bëgg ñëpp mel ko te su ko bëggee am ko ni mu ko bëggee am ko ni mu ko bëggee laa la wax kon du jar sax muy wàññi muy wàccee ay yonenti yonent yonent waaye du moo xam Muhammad ka fi jaar de ñu baree baree bari ci ay yonent jaar nañ fi ku ci nekk da ngay jaar jéem a jéem a jéem ba tële dem lu indi keneen mm-hmm. te du tax la sunu borom bëgg dëgg adduna doxe ni faaw dina am ñoo xam ne danga koy dëgg woon ko ginnaaw lu toll ne ab taalibe nga xool ko waaye nag am na ñoo xam ne c'est des obsédés sexuels mm-hmm. ñoo xam ne seetuñu ki nga xam ne malade mental la seetuñu ki nga xam ne xam nga am na nu mu mel seetuñu dara mm-hmm. ñoom ñi ngi yor sexe fou mm-hmm. fu ñu jot rek dugal ko fa xam nga xam nga gis nga dof ñu ngi jàpp ne dof yi nga xamante ni dañuy def ay sagaru neen di wër ci euh, bari jeeg yooyu ñoo ñooy dof. dof mm-hmm. Mm-hmm. yaa ngi ci biir dañoo am malade mental. mais dof yu vrai mm-hmm. mooy ñi nga xamante ni ñoom ñu ngi jëw di def loo xamante ni defowul xale bu ndaw na ngay góor. waaw muy góor. te daf ko teg paaka yow nga teg ko paaka tëddee ko loolu mooy mm-hmm. ak wéradi. góor ay eh, waay adduna bi tukki na di yow koo koy dof nag. Mm-hmm. balaa ngaa gën a xam ni àdduna tukki na damay ñëw ci le jeune américain âgé de 18 ans moom mi nga xam ne dañ ko agressé seen biir kër daal di koy rey ñi ko def nag six personnes lañ ñoom ils sont recherchés li gën a metti ci affaire bi mitaa mooy biñ ko biñ ko agressé ba yóbbu 2 millions de francs fia de francs CFA excusez-moi mm-hmm. ak 3000 dollars. Mm non seulement dañ ko def loolu sàcc ko mais bi ñu ko yóbbee hôpital ba mu yegsee hôpital dañ ne duñu laal cas bi tant que fayuñu. ah man de vraiment. non le Sénégal va mal loolu moom c'est vrai dafa ñaaw lu naaw loolu loolu. parce que loolu loolu loolu. fu mm. ñaaw la jeexee foofu laa tàmbalee. Mm. wuti kaw mm-hmm. ndax day dégg naa am na ay réew yooyu soo ñëwee urgence ak noo mën a mel ci këru àdduna toppatoo wuñu xaalis boo yor. lijjanti wunu loo yorul lijjanti wunu dara mm-hmm. d'abord na nga sauver ba pare la santé avant tout ñu soog a mm-hmm. lijjanti très fii ci réew mi ñun ñuy ay jullit mm-hmm. war a taxaw di xool nit muy sukkuraat nga di ko dimbali di ko assister soo ko seetaanee moom nañu wax noon assistance à une personne en danger nga xool koo xam ne oto yëg na ci kawam genn wàll gi oto baa ngi ci koom genn wàll bi ma nga ci suuf nga war a seeti nooy def ba pousse oto bi ba mu wàcc ko nga taal sa caméra di ko filmer mhm. mu nekk dans l'agonie ah. di ëlbatiku di sukkuraat mhm. di daj loo xam ne oh. man yaa ma ëpp am xol mhm. man man ñun loolu xamuñu ko nee na lu nit ki mën naa gore goree goree gore ba mel ne am tan ñu ne ko lu tax mu ne tan riqumaa inda laa lay dundee nee na su ma jàkkaarloo ak fas wi muy sukkuraat ba mel neneen noo xam nekk ci yeneen melokaan mm-hmm. fii ak bakkanam génnul àdduna duma ko jëfandikoo tan moo mel noonu mm-hmm. tan mm-hmm. lu sunu borom rey rek lay dundee yàllaay rey muy dundee yàlla rey muy dundee mu ne wërsëgu jaam yàlla moo tax tey fas wu mag soo ko tegoon fii tey muy ëlbatiku bay xalangu fii ak ruu gi mi ngi ci moom tan du ko laal su génnee àdduna rek moom la koy soog laal nga dem ëlbati lu am solo tiim doomu aadama mu nekk foo xam ne nekk si métit ci métit hmm? nga ëlbati di waaj a faatu nga ne kii du ma ko laal fekk jënduñu ordonnance waaw mais loolu mais loolu mais loolu alalu àdduna jaru ko quand même hmm. père loolu nga ko nga bañ koo xam yéen mbokk internet yi laay waxal hmm. bu leen ñee ñu bari bu leen leen ñee ñu bare bari gàddu nañu bakkan te dama gunu yomal xëyam déglu bu baax li ma lay wax fa may waxee nag am na ñoon pour ñu déggee fa day xaw a métti ñu baree ngi lay romb ñii yor ay 4 x ñii nekk ci ay boîte yoo xam ne ñii nekk ci ay bërëb yoo xam ne yu nu war a jotee bakkan mm-hmm. wala ñii nekk ci koñ yi am ko yor ko mm-hmm. mën ko xam ne ordinance bi dong su ko kii jëndee mm-hmm. wala ñii nekk ci réew mi ay pharmacie nekk fi mhm. ñuy indi ay contrefaçon di ëlbët di jaay garab yoo xam ne baaxul mais gis nga mu leer na leen leer yàlla am na ñoo xam ne gàddu nanu bakkan te génn gunu àdduna génn gunu yomal xëyam mais gàddu nanu bakkan père dogguma la sax mais gis nga man def naa benn interview même euh, ki nga xam ne moom moo assisté euh, l'américain bi la ah mhm. moom ba mu ñëwee sax dégg naa dafa ñëw laaj docteur yi. Mhm. docteur yi ne ko non non duñ ko laal fekk jënduñu ordonnance bi. Mhm. laa ilaaha illallaah. heureusement gars bi nga xamante ne moom yoroon na calp yoroon na portable amoon na orange money. orange money ci la dem mhm. génn ji. 500000 waaw ñëw. jënd ya nga xamante ni mënut a ñàkk. effectivement vraiment ñu def loolu. mais loolu dafa ñaaw ci Sénégal Sénégal mérité wuñ loolu. parce que buñ ne fii dëkku lislaam la dëkku diine la. Mm-hmm. dañoo war a dimbalante di yërëmante. Mm-hmm. voilà dëkk boo xamante ni Sëñ Tuubaa nga fa Baay nekk fa. Mm-hmm. maam alaaji Malick Kunta Ndiassane Limaamu Laay Yoof kilifa nekk fi mais vraiment à chaque ngay dégg yu mel nii ñaaw na ñaaw na si delloo Sénégal vraiment man dama si dama si ah. rus jullit soo waxee ñu ne ay jullit nañu. dëgg la ñooñu. xam nga boo leen nee ab jullit ñu xeex jullikat jullikat jullit bokkul. <laughs> Euh, loolu daal nañ ci bàyyi xel bu baax parce que il est temps mu dañ fi parce que metti na trop franchement damay ñëw père ci affaire rango ba tey pareeguñ ci moom Ahmed xalifa ñas nee na moom xamul lu rango def d'après benn interview bu mu def nee na xamul lu rango def yoonu kenn moom euh, jugé wul rango et que yoonu kenn nekkul ci vie privée citoyen la comme ñëpp donc kenn waru ko juger wala di ko wax quoi que ce soit bu fekkee dafa def loolu lenn loo xam ne c'est privé c'est sa vie privée kenn waru ci dugg père loo wax ci loolu. nañu woyal waxtaan bi rek. man de. Mhm. xam naa dëgër nga bopp lool. moo tax ni daal nañu woyal waxtaan bi ndax du wax ci rango. su fekkente ne Ahmed Khalifa Niass la. ab sëriñ la yal na yàlla guddal fanam yal na yàlla wéral ay cëram. yal na yàlla yokk ak manam saa yu jafalaa amee moom moo ko daan organiser man maay dem di ko couvrir couvrir naa ko fii ci yi ci këram gi jàkk kii ci këram gi jàkkaarloo ak école Manguier mm-hmm. joteewu ma ak moom dara moo ma dàq jàng alxuraan moo ma dàq jàng tubaab ba philosophie bokkul ak sama philosophie man nag lenn dong laa taalibe Sëñ Tuubaa Cheikh Ahmadul Xadim di wéy ci ndigal taalibe Cheikh Mouhamadul Habib Mbacke ibnu Sëñ Abdoulahi borom dër bi laa. macha allah man philosophie am la bokkut ak man man ci ndigal rek laay wéy. defal ci rek laay wéy. jërëjëf defal ma def. Mm. bàyyil ma bàyyi. Mm. xëy na xam na ay aaya yoo xam ne tey soo ko woon su toogee. Mm-hmm. dina la ne aaya sàngam ak aaya sàngam. Mm-hmm. libéré na ki nga xam ne mooy gune gii ngeen di wax. nga xam ne aaya boobu libéré na ko. rafet na man rangu. jotew maag moom aw maag moom ay wax mhm. du ma ko tudd du dégg na man maa ko wax dara mhm. daan naa ko gis ni ma ko waxee démb ak bërki démb seen TV mhm. ñu nekkoon fa gisatuma ko waaye gis naa ci barke borom Tuubaa am ñoo sax musuma koo seq ak moom te duma ko seq ak moom noonu nag Aïcha kon dafa mel yi père li mu wax c'est ah. très clair Mita di la waxaan ni rek mm-hmm. père dama koo bëgg dama mm-hmm. bëgg ñëpp xam ko dama ko bëgg sama biir xool ah, waaw mais père dégg nga loolu ah. waaw dama koo bëgg sama biir. rangu dama dégg oh. dama ne. Mm-hmm. père déggoo kii li mu wax. man li ma wax li ma wax moom père tootu père non père koo bëgg sama biir xol dama bëgg ñëpp xam ko. du ci tootu man li ma leer mooy. Mm-hmm. du wax na am na ku mu wax ne xaw ma moo ko daan ceebal ay ceeb. xaw ma ak yow jamra bi mm-hmm. moom ak su fekkente ne ceeboo nan su fekkee daan na ko ceebal di ko yekkal di ko jox. moom moo xam ak kooku man man du ma ceebal. mais sax papa dafa mel ni histoire bi jeex na parce que Rangou génn na baalu na àq ne mi ngi baalu àq ñëpp. donc dafa mel ni histoire bi jeex na. Mm-hmm. ah mm-hmm. Aïcha mi ngi toll si topp. damay ñëw jàll si euh, coach Mita coach nag. Euh, dëkk l'autre jour dafa publier benn photo bu Mame Mactar Gueye nee na Mame Mactar Gueye wax ji mu ngi commencé bari et su ko moytuwul dina publier génne lim xam ci moom yëpp. ci Mame Mactar Gueye nag moom tontu na ko Mame Mactar Gueye bu Jamra effectivement Mame Mactar Gueye nag moom tontu na nee na ko bu fekkee yow góoru yàlla nga dindil sa masque bi nga ñëw jàkkaarloog man te lépp loo xam ci man boo ko génnewul baalu ma la ko père loolu la ko ci wax. <laughs> Ah, man maam Makhtar Gueye xamaluma ko dara maam Makhtar Gueye man man taalibe sëñ Touba Cheikh Ahmadou Khadim laa ndigal laa xam taalibe sëñ Modou Habib Mbacké laa macha allah waaw man kii ñooñu nga ma wax kii kii man billaahi wallaahi wa taalaahi barke borom Touba Mbacké nu mu tudd nga ne Makhtar waaw ba xamaluma ko dara mhm. waaw man taalibe sëñ Touba laa mhm. maam Makhtar Gueye xamaluma ko dara kocc nag mhm. sama maam na nga ko tuddee. ci Kocc laa bëggoon nga ñëw sax. ci Barma Birama Fall waaw sama mhm. maam. na nga ko mhm. tuddee ba Kocc Barma Fall. Mhm. mi ngi dëkk dëkk bu neex Njonge Fall. Njonge Fall ñooñu laman de ci fu njóogu mooy seen maamu Asjaañ Kocc sama waa ji fa njóogu mooy maamam. faamu yàlla faale yaa bëgg Seydina Muhammad as rasulu jaañ moom dafa dàkkanteleeg boppam as rasul asooy asoo dëcc fa njoogu mooy sa maam ko ci barma faal wuy leele wuy leele man dafa gënaa la ah tey laa lay woyal sa maam ko cubar ma faal mun de bëgg naa la sama waaji waxal ba mu neex la yaa war a wax yaa ñu saaf bum la tax a wax loo xamul ëllëg da toog rek ko ñu ne la toogal ba sa wax jotu nga wax mm-hmm. dëcc fa njoogu mooy sa maam mm-hmm. waxal waaye mii ma la wax moom mooy ay maamam mm-hmm. ndeysaan muy laman xabooy ah. Laman Baaka. Laman Palmeew. Laman Njonge Fall fa Kocc Barma Fall dëkk. ak Laman Xàndan ak Laman Jamatil. Mhm. ñii ak Laman Looyeen ñii ñoom ñooy ñoo Kocc Barma Fall ñoo bokk menn maam. Mhm. Laman Dëcc fu Njóogu. moom Njóogu Malick moom ma jàmbal jawaan moom jawaan ñuq moom ñuq faam ma jigoon faam kundaa doon ab soose boobu sant gunu faal mhm. faam nanu santoon ñooñu ay maamam ñooñu ñoom ñooy maamu première damel première damel muy Amary Ngoone Sobel. Amary Ngoone Sobel ndeysaan. père. waaw waa léegi nag waa léegi nag per Kocc moom nag tuddee boppam Kocc wax ji wax ji wax waxam juree jooju mu wax noonu. man père li ma bëggoon xam moom ak kii nu mu tudd nu ko tudd. <laughs> non euh, nan. maam Maktar maam Maktar non père sama yoon nekkul ci mag amoon aw ay tey bay xeex bay dal samay tànk damay. ba père man père ñëwuma ci lool li ma bëggoon xam mooy per balaa maa tëj bés de la semaine li ma bëggoon xam mooy père. Hmm. coach liggéey bi muy def ànd nga ci ak moom wala àndoo ci ak moom. man daal man daal man daal damaa bëgg ngeen gë di ngeen génne ma ci imaam bi ak kocc daal damaa bëgg ngeen génne ma xamaluma leen dara. xamaluma leen dara wallaahi barke borom Tuubaa Mbàkke ragaluma ko dara jëy borom Tuubaa Mbàkke lillaahi wallaahi mais damay mandu damay mandu ci ñoom euh. ndax man man. ndeysaan li may wax mooy yàlla na ma yàlla ak yonent bi ak borom tubaab Mbàkke musla ci ayu média. ndeysaan yàlla na ma yàlla musla ci ayu média. wallaay wallaay lii su démb doon tey du ma ci dugg. Mm-hmm. dugg naa ci ba nëgë ni mënatuma cee génn. waaye yow foo xam ne bala ngay wax di nga segg say wax. Mm-hmm. amatoo droit lekk forox caaya. Mm-hmm. dootoo yëy gerte caaf ci mbedd. dootoo dugg ci gaar rapide dootoo dugg yàlla foo toog. soo jubee ay nit soo nee salaamaaleykum ñii ñu ngi taal seen portable di teg. Mm-hmm. nangoo ne walaay walaay père. bëgg rek nga wax musiba. ci coono bu méttee méttee. Mm-hmm. lii su doon la gis naa ci barke borom Tuubaa du ma ci dugg. day walaay du ma ci xam nga père boo déggee. ay rëccu dina fekk jëm walaay suñu débat bi dafa ñëwaat ba tey. lii lii wax dafa doy waar. waaw yàlla na ma yàlla musal ci